Pape Diouf day annulé kay par force jaara day annulé Pape Diouf day annulé xoolal fii mu rafet amul milliardaire amul Youssou Ndour amul euh, Wally amul man di ma xanaa xamoon ne fu nekk ñoom ñoo ñu gën a tiit borom xaalis ñoo ñu gën a tiit fu nekk waaw parce que instant yi dañoo xam ne du ñu tus Wally Seck Wally fu mu nekk zéro moog ñun ñoo yem otoom yi rafet yi mënoo ko dawal ah Youssou Ndour auto mi rafet mënu ko dawal ñeme ñëwul génn naan day dawal ay auto Wally Seck mënut tëgg concert yus ndu mënu tegg concert fi de moo tax képp kuy wax nee naa nit dañuy fàtte fàtte lu dé nan la 11 avril Wally Seck ne 11 avril damay def sama anniversaire pap Diouf nan avril avril ma ngi fële fekk leen euh, arena Dakar arena Pape Diouf dafa waroon def Dakar arena ki nee 600 euh, dollars pour lan pourquoi fii dañ lay jox 600 dollars képp ku nekk chômage Amérique ah képp ku nekk chômage ndax corona bi di nga laal 600 dollars amul sax ndax corona képp ku nekk chômage bu nekk ni laal 600 dollars par semaine pendant 4 mois. mais yàlla nañ ko fekkee loolu mooy wax ji bu leen ñu ñëwee de bu leen ñu ñëwee de ndax xamuñu ndax dinañ ko fekkee waaw li ma doon wax nag mooy. ana Pape Diouf yoo xam ne day def day def euh, kii di publicité ah, damay def euh, euh, Dakar Arena mu nekk Dakar Arena da boo fa demee Pape Diouf bu demee du gis picc gouvernement bi si boppam moo ko dul permettre mu def Wally Seck mënatul tëgg fenn musicien Wally Seck yi Wally Seck day obligé di leen fay wala si am na ñoo xam ne boo liggéeyul doo laal ah waaw corona corona daf yàlla mooy wane boppam yàlla mooy wane boppam xaar mu bougé parce que kii ma gis ak cigarette am ak bière am wóorul parce que social distancing lañ wax yow yow ñu wax corona yow nga yor sa bière di nan ci mbedd bi xam nga ne genre il faut nga wóor nga kii leen Pape Diouf day annulé kay par force jaara day annuler pap Diouf day annuler xol fi mu rafi ma sha allah pap Pape da fay annuler par force gis nga wali Seck wali Seck fi mu nekk zéro mok ñun ñoyam auto otoom yi rafet yi mënoo ko dawal han ah? Youssou Ndour otom yu rafet mënu ko dawal ñeme ñëwul génn naan day dawal ay oto ah TFM lu mu lu mu rëy rëy rëy am 400 employés Youssou Ndour ñemewu fa dem xam naa ne dina dina fa raar waaw dina fa raar de Wally Seck may na 10 millions waaw ba tey waaw mais lii da lay wan ñu xaar rek ba corona bi ñëw nga commencé may ay 10 millions Wally Seck sax avant corona bi moom da doon maye waaw corona régulateur wax nga dëgg de corona du ay fo du ay caaxaan ñun ñii jot a dund dara sax beeboo ñu sant yàlla ñu ñii jot a dund lu bon bon dund nañu mais yàlla ay mbiram kenn xamu ko lu tax yàlla defar corona ba pare du laal xale yi yàlla yàlla rek ay buur barki rasulullah yàllaay buur dafa defar corona mais corona du laal xale yi ndax xale yi dañu am lu ñuy wax mélatonine xale yaramam day bëri mélatonine mélatonine faut bloquer corona motax leen surtout nak xalé trois mois ba 9 ans bok mënul ci yow dara même xalé 10 ans 12 ans ba ay ans yi sax booy xool Hein? mënul ci ñom dara dalen di dal même xalé de bu la dalee soj lay doon wala ben genre grippe bu ndaw ga motax sax waaw ñeneen ni millions la joxe ñina xam nga des fois Wally day joxe dara gaay di ko waaw même bu joxee un million rek baax na même geste bi rek geste bi rek dafa rafet tey bu ñëpp joxe woon cinq millions comme Wally Seck mais dina baax non Wally moom ñëpp xam na ne il est généreux waaw Faramaren yàlla ko yàlla aar aar sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp foofu la baax gars yi bu leen di laaj bu leen fàtte di partagé baax gars yi bu leen fàtte di laaj di partagé numéro uno numéro un numéro corona bi fi mu nekk est-ce que tal ngeen Aida Diallo soxna Aida Diallo tal tal su leen ko de